ndax man maa ngi yor doom nàcc ci kawam ak doom ni muy soxlaa ndayam sama yaay ëmb feebar ba sonn sama bàjjen jël ma téema ma nekk xale bu ndaw kooku duggul ci duggagul ci naqaru àddina ma dafa am yàlla zaaru nit ñoo xam ne lii la leen nattoo waaye barki Mamadou Fabal àdduna bu jugoon di leen xeex ñu mën ci kooku okkin ndax yàlla moo leen sampal boppam taxaw xam nga lu tax may man ñi may topp laa yërëm waaye man bu fekkee ni man lii ñuy def ci réew mi déranger na ma lu toll ni tarafatal ay ni yàlla na ma safara jël àddiya ma chérie àdduna bu taxawoon di xeex maam Ndiaye Savon xam nga lu may tiit gudd fan ak wér-gu-yaram bu ma ko yàlla maye barki Seydina Muhammad amul nit ku may teye liggéey ci réew mi ndax li ma leen wax chaque jour réew mi boo fi nekkee doon gaynde amoo seef amoo ku lay tere faale woo dara tiitoo loo kooku ñi lay bëgg du bari te ma chérie voie normale laa laa nekk voie normale xam nga lan mooy voie normale ngay liggéey di ko sellal defoo lu ñaaw waxoo lu ñaaw réew mépp bu ñu jugee di la xeex nga nekk ci voie normale yàlla dalay téel boppam déranger wu ma lu toll ni tarafatal ay bi barki sëriñ Fàllu Mbàkke gis nga turu gaynde bi may wax moo nekk ci man man sama yaay ji ma sukk jur bu fekkee jaaxaluma ko lu askanu jaraxasoo yàlla naa ko summi naan sama yaay daf ma naan li la yàlla ma yow rek la ko may jour bi la Sénégal di gën a mën a jox wax jour boobu nga gën a mën a lekk jour boobu nga gën a mën a nelaw ma chérie liggéey jaamu yàlla lekk ba suur naan ba màndi defoo lu ñaaw demoo hôtel demoo baar defoo lu bon nga nekk ci voie boobu bëgg tiit bëgg a ragal non kon yow boo tiitee ragal la dootootoo jullit te yàlla sunu borom bëggul kuy tiit yàlla sunu borom bëggul kuy ragal yàlla sunu borom bëggul kuy xef lu toll di tarafatal ay mi àdduna bu nu taxawoon duma xeex parce que fàllu Fallou Mbacké lijjantiwuma leen dañ ma envoyé benn direct mami Cobra di ci wax naan maam Ndiaye li muy jënd ama en matière business yaa na pas euh, sentiment li mu wax dëgg la xam nga li tax li mu wax dëgg la ma man liggéey bu taxawee awma xarit awma àndandoo gis nga lii ñi mu lii tey la bi neex ma man bi ma nekkee xale damaa tarbiyu commerce maa chéri ba xale yi jàngi man jànguma yàlla may na ma lu mu mayul kenn bu ma jàkkaarloo ak sinuwaa damay wax ak yow barki Seydina Muhammad angale dama koy wax ba jënd samay bagaas loolu yàlla sunu borom la dëkk bu ma dem man maay waxal sama bopp ba jënd sama bagage multiplier ko xool li ma ko jëndee amul lu may jaay ci àddina di perte xam nga lu tax gis nga diw don la don la ci man yàlla moo ma ko may don boobu ma di ko def ba mu nekk sama métier mais man lii mooy sama forte muy commerce xam nga lu tax lii mooy sama forte commerce bi ma juddoo ba tey maa ngi commerce bi ma juddoo ba tey maa ngi commerce gis nga diw yi may am ay million téeméeri commerce bi may am ñaar fukk moo ma ko a ndax xam nga lu tax commerce laa njëkk a def te commerce man laa tarbiyu commerce bu ma ci amee ñaar fukk damay lew parce que dama ko tarbiyu xale bu am 12 ans 2002 imaginel man 92 laa ci laa judd musuma def jugement musuma at samay at musuma dem fenn musuma wax dara musuma tukki musuma voyage màggal Touba moo ma daan génne Pikine 2002 laa commencé jaay marché Zeng xam nga 2002 bi may jaay marché moo ma may malal bi may jaay marché Zeng 2002 boobu ndoxu paquet ndoxu paquetage amul woon boobu mbuusi gudd yi moo amoon ma koy sol sunu ribene ba mu fees ma toj ci galaas taxaw ci marché bi di wër di ko jaay te jaay lu ma ko kenn sama bopp laa ko doon jaay ndax man ki ma yar damaa judd rek fekk ko mu taaj taabalam di jaay ay mburoog ton ak ñebbe ma kopp ci moom ni man kii lii muy def waruma ko xeeb benn yoon lii muy def laa war a def dama leen expliquer su ma paree doo ko parce que réew mi day baaxoo léeg nga toog wax ma koy sol su ma ko solee taxaw ci taliba waa mairie ñëw di dagg palaas ma taxaw di jaay ñi ñuy daggal palaas ndox benn association boo xam ne ñoom lañuy may ci territoire tali bu mag bi ñoom ñoo lal foofu ñu daggal leen naar bi moom building bi gis ma may jaay ndox ñooñu mu gis benn espace boo xam ne espace bu ndaw la naar bi génn palaasam 2002 laa leen wax de naar bi génn palaasam ma naar bi gaañu na doomam moo moom centre commercial Khadija papa yi moo di naar génn palaasam jox ma ban ne ma toogal fii ngay jaay ndox ndax wër bi dafa metti gis nga palaas boobu ci laa nekk ba yàlla teral ma ma dem ba mu nekk un mètre te bi ma koy may nii la toll ma toog fa di jaay ndox ci association bi ay maire ma toog seen biir yàlla mooy may nit daraja ma dem ba maire yooyu di toog foofu ma yoreel leen nat ba ca dix mille te booba xale la yàlla daf ma teel a def responsabilité dama leen expliquer ba ba may toog foofu di jaay ndox may jaay ndox di jaay ndox ba am fond xam nga ñaata laa am fond deux mille euh, sept mille cinq cent ma dem sama atelier papa fekk ko mu toog ma ne ko ndox mi dafa metti te bénéfice bi bariwul dajale naa ba am sept mille cinq cent jox ma cinq mille ma mottali sama papa ne ma ñaw yi bareegul ma ne ko kon baax na ma gedd wan ginnaaw sam papa sam woo ma ma ñëw bëggul woon lu ma naqari mu yëkkati 5000 francs jox ma ma am 12500 ma daal di sol sama dàll dem ba caarooy fekk fa njaayum géwél xam nga lan mooy njaayum géwél ay lam ay susu ay jaaro ay lépp ma dem jënd ko jël ndox fi ma daan jaay ndox fomp ko ba mu wow teg fa njaayum géwél ku ñëw xam nga lan moo tax ngay jënd ci man yërmande ak ndaw gi ma ndaw moo tax ngay jënd ci man may jaay njaayum géwal soo feree 7500 mbaa nga fere 12500 boo jeexalee da ngay am 12500 ma koy dajale di ko dajale di ko dajale tàppate leen bi boo leen jooyee rek live bi day dañ koy signaler ma di ko dajale di ko dajale tey loolu ma jural lii barki Sëriñ Fàllu Mbàkke di ko dajale di ko dajale di jaay njaayam géwal ba mu jóge ma dem fay tontoo bada jëkkëru ab batu bu dee mu may dégg ma fay ko mille francs mu daajal ma taabal boo xam day taxaw nii damay mën a taxaw toogaay bi dafa metti ma teg ci sama njaayam géwél di jaay déggoo leen ma de ci xale bu juddu 92 2002 fekk la ci marché nga nekk xale marché Zeng sa xol toj damay teg sama njaay sax mag yónni ma ma daw su ma ñëwee nga jaayal ma jox ma jëndali ma ndékki ma daw jëndali ma lii ma daw may ta may tarbiyu lool di tarbiyu lool di tarbiyu lool di tarbi ba am fukki junni gis ngeen fukki junni yooyu bi ma ko amee xam nga lan laa njëkk a def daw jëndali sama bàjjan bi ma yar tapi jëndal sama yaay rido bu tabaski jotee mbaa korite samay doomu yaay yi mu am doom yu ndaw yu ndaw yi mu nef su ma jëndul ensemble yu deux mille yu mille francs yu mille cinq cent jëndal leen ñoom du ñu solu ma dajale jëndal samay rakk ñoom Kumba Ja mii Kumba day jooy nee na mees la bëgg ma liggéey di daw jëndal ko mees mu léttu faaxawaa nee na ensemble la bëgg damay daw dem jëndal leen ko dem léttu sama yaay bu tabaski jotee 4 jours su ñëwee ci marché bi sama moral day dem na xam nga lu tax sama yaay tiset bi muy sol ak sër bi muy sol damay rusa wane ni kii mooy sama yaay ci marché bi dama naan ko yaay bul ñëwati ci marché bi toogal rek su ma jëndee ba pare man dinaa ko dinaa la ko yóbbante ndax mi ngi dëkk buun est-ce que yéen a ngi dégg li may wax